الحمد لله الكريم ذي المنن على تغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على تغالي بفروض وسنن شكد لأنه قد ساقني لوطن به نفع ما آقني وقادني إليه بتحلي من بعد ما هذب بتخلي وجرني في إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قد أن أتبعا على الذي من بمراد اقتدى في السر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القائر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدار لا أهاب asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Touba ca kanam nooru daare ñu ngi leen di ziara di leen nuyoo fii ci euh, CICES e euh, fi nga xam ne fi lañ fas yéene amale bis bu am solo bi nuyoo bi nag ñu ngi koy tàmbalee ci Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ñaan mu yàgg fi lool Mbacké te ànd ak wér noonu lañ ko ñaanale Alaaji takk Mbacké ambassadeur Touba ca kanam nooru daare ni waaye itam di ziar bu baax a baax sëriñ Abibulaay Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Fadal mi jiite liggéeyu Touba ca kanam Nour Daara naka noonu ñuy ziar bu baax a baax sëriñ Abdoulaat Mbàkke moom sëriñ Abibu di jëwrunu sëriñ Abibu Mbàkke eh, mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam Nour Daara waaye di ziar bu baax a baax bàjjan Bintu Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwrunu soxnay Touba ca kanam Nour ni naka noonu ñu ziar bu baax a baax président sëriñ Abdou Fatah Guèye mi nga xam ne mooy président Touba ca kanam. Nooru ni ak mboolem administration wu Touba ca kanam Nooru ni muy fukki commission ak ñett yi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu liggéey bi. naka noonu ñu ngi ziar bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñoo jiite ñaari corps yi contrôle yi nga xam ne mooy saytu liggéey Touba ca kanam Nooru ni di ziar tamit sunu mbokk yi nga xam ne ñoo féete ci wàllu diaspora bi muy commission relation extérieure ci teewaayu ku mel ni Serigne Cheikhouna Lo bu Ngaabu Serigne Abo ak Serigne Mohamed Seck. di nuyu nag mboolem waa Touba ca kanam nooru dara ni bi réew mi ak bitim réew tey nag ñu nekk fii ci CICES bis boo xam ne yàgg nañ ko waajal bis boo xam ne yàgg nañ ko xalaat mu yéene joo xam ne yàgg nañ ko am ngir lan am yéeney fu taalibe Serigne Touba nekk Touba ca kanam yegg si fa ngir ñu mën ci tàbbal seen ñaq weer wu dee ñaari téeméer loolu nag jàppoon nañ ko mu doon tey yemook gaaw fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2021 fii lañ ko war a amale tey nag nga xam ne li war a am ci bis bi tàmbale nañ ko ci njàngum alquranul karim bi juróom-ñetti waxtu jotee tàmbale woon nañ ko sànq la kaamil bi yegg fi ñu toll ñu ngi ci wàllu animation ci wàllu xasaayit jàngkat yi war a ñëw kenn ku ci nekk barkeelu juróomi minute ba fukki minit bu ñu demee ba nga xam ne deux heures jot na nag daañu waajal lii nga xam ne mooy waxtu wi bu ñu jullee ba noppi waajal bernde yi bu ñu demee ba deux danañ waajal nag lu jëm ci wàllu Euh, mise en place bi mooy dalal gan ñi ngir ñu mën a liggéey bi trois heures pile daañu tàmbali li nga xam ne moom mooy euh, liggéey bi euh, programme bi ni muy tëddee mooy Serigne Abdou Fatah Gueye moom mooy njëkk jël kàddu présenté dalal gan ñi waaye jaajëfal leen mu ànd nag ak benn gitaay bu ama am solo muy benn vidéo treize minutes boo xam ne dina ko jàllale waaye ak lan teewaay ku mel ni Moustapha Guirassy ci benn vidéo boo xam ne cinq minutes lay doon suñ ci wàccee kaddu googu nag ñu door a jébbal Serigne Saliou Diakhaté mi war a nekk modérateur ci thème bi ñu war a waxtaanee bi njëkk mooy ñu waxtaanee euh, Touba ca kanam un modèle un modèle de développement communautaire loolu dinañ ciy def jotaay boo am solo kan moo koy def mooy Serigne Moustapha Guirassy ak kan Serigne Bamba Diagne ñu war ci an nag ak soxna soo xam ne moom tamit ci wàllu liggéey bi dina taxaw jàngat ban wàccuwaay la jigéen ñi am ci yoonu murit ak nan la ñuy gën a jàpp na leen seen wàccuwaay ginnaaw bu ñu noppee ci loolu nag daañu jébbal kaddu gi su fekkee ki fi nekkal xalif jal demurit teew na wala ku mel ni Cheikh Bassirou Abdou Khadre wala yeneen gan yi nga xam ne mën nañ bàyyi ko ci këri diine yi daañu leen dalal ginaaw bu loolu jàllee nag ci ñu tënk kaddu gi jébbal ko Serigne Abibulaay Mbacke moom Serigne Fallou mu jébbal ko Serigne Ablaat Mbacke moom Serigne Abibu mu wax ci kaddu Serigne bi soññiwaat mbooloo mi ndokkeel leen jaajëfal leen taxawu leen waaye ci biir waxtaan wi dina am commentaire Jibi Jaxate moom moo koy def waaye ak ku mel ni imaam Cheikh Gueye moom tamit dina fi jël kaddu waaye ci biir programme bi nag daan ci ànd ak ku mel ni El Hadj Ablaye Mbaye Peex ci soññee ak yaatal pas-pas ak pësteefu taalibe yi ngir jaayante bi nga xam ne lu Touba ci kanam moo ko am moo ko may ñu fas ko yéene soññee kon daal loolu mooy li ñu tënk ci wàllu programme bi war ko doxal ànd ko ak mbokku taalibe yi ki nekkoon ci kaddu gi. mbaytan bu Gàmbi pour la commission communication Touba ca kanam wasalaamualeykum wa wa innani yaa barru yaa karimu daain wa an tukrika la arimu mundu dadatani ilayka ya muin inayatan minka ilayya lituin فقمت مجوبا إليك منك بك عليك أو رديد عنك مفودا مسلما إليك amri muhajiran lima ladayka summa ilayka la ilaha siwaka qad sirtu lamma lam ajid sarwaka fajurtalil yawma bi xayri minani waqudani ila iqtifaa'i sunani min baadi ma kaadam tidaaxu naasi yudxuluni fi sarakin qannaas